camarades de nañu sant yàlla bu baax parce que bépp nañu suñu xel sedd na na. mani nañu sant yàlla santaat yàlla santaat yàlla nom des leaders ak loolu lañ ma santoon muy wareef muy bànneex muy lu ma sawar ngir ñett yëf bu jëkk bi mooy Barthélemy mbooloo mi la doyloo mbooloo mi nga àndal mbooloo mi tax lii moo ni Barthélemy Dias la ñu yokk ci ne suñu 19 candidats yi parce que nag combat wu combat aux villes, combat aux communes. Il faut gagner dans chaque commune. Il faut gagner dans chaque commune. sama doom ngoone présenté na léegi suñu candidat yi ak suñu candidat yi nga xam ni moom la am ci 19 communes muy ay jigéen ay góor ay mag yoo xam ni ils ont la culture de leur commune ils ont le sens de leur commune ils sont imprégnés des réalités de leur commune mais c'est surtout c'est des candidats de rupture d'innovation c'est des candidats qui vont oser construire leur commune looloo dalal suñu xel looloo doyloo suñu xel parce que xale yi nga xam ne moom la ñu jiital ci 19 communes yi dañu xam seen bopp xam fi ñu bokk xam li ñu doon xam li yéene xam li ñuy liggéeye mën ko liggéey te fas yéene def lu fi kenn daawul def xam nga lu tax parce que dañu wuuteeg ñi nga xam ne ñoo leen jàmmaar lool duñu benn duñu benn duñu benn duñu benn c'est des personnes de rupture ñu xam seen bopp xam lu tax ñu jiital leen ñu xam surtout li nga xam ni moom la yéen askan wi tëral ci doxalin ak yéeneeg yaakaar doxal suñu doxalin li tax ñu tànn leen ils sont imprégnés ils sont inspirés de notre idée de gérer autrement nos localités gestion bu wóor. gestion bu leer gestion bu aw yoon mais gestion buy jëriñ askan wi nous sommes tous adeptes du penser local et agir local penser local et agir local ku nekk ci ñoom suñu candidat yooyu ak suñu candidat yi muy sa koñ di sa kër di sa quartier mën nga doxal sa kër mën nga doxal sa dëkk parce que dëkk bi mooy kër bi mooy koñ mooy quartier gi mooy firi la suñu candidat yi loolu moo leen inspiré mais li leen soxal mooy dañu leen fal na ngir ngir liggéey ngir ànd ak was askan bi liggéey liggéey askan bi liggéey ngir wër askan bi ñëpp xam nañ ni Dakar mooy Sénégal ma ni Barthélemy liñ la sos mën nga ko àttan nga ko bëgg nga ko te daañ la ko jox ñuy jox mooy liggéey sa réew parce que da toppatoo askan wi da toppatoo seen dëkkin da toppatoo seen dëkkuwaay da ngeen toppatoo seen melokaan da ngeen di toppatoo seen nekkin da ngeen di toppatoo seen ëllëg ak lu leen jëriñ ak ñu bokk mais la différence avec les autres c'est que ñun li def ngir ñoom ak ñoom pour ñoom ngir lu jëriñ dëkk ma wax ci leeral Yewwi Askan Wi muy àndu gor muy àndu nawle mais muy àndu ay bañkat bañ yenn yi bañ nangu yenn yi parce que ku xamul sa bopp muy nangu yenn yi ku xam sa bopp am na loo dul nangu doo ko def mukk parce que dara jaru ko lu nekk ci nit soo bi baaxul la posé askan du ko ñu yemee askan wi wóor nañu ni chacune de vous chacun de vous est conscient de ce qu'il peut apporter à sa collectivité à sa localité mais surtout ku nekk ci yéen xam nga ne la koy jëriñ moo koy defal boppam ku koy ci fekk na koy jàppale wante amal boppam xewu askan wi ni il faut gérer autrement les collectivités il faut que nos collectivités soient le miroir de l'État futur que nous allons construire en quand nous gagnerons les législatives inchallah dañu bëgg maire yi ngeen di yor doon ni structure yoo xam ne ku ko gis xam ne lii weesu na lii am na lu coppeeku ci lii am na nit ñi jëriñ moo tax Bart yow ak say 19 collègues dañ leen wóolu dañ leen doyloo dañ leen yaakaar ne xam nañ ne du ngeen ñu bett du ngeen ñu bedd te di ngeen def li ñu bëgg incha allah ñetteelu kàddu bi baax mooy yow ak Dakar yow ak Dakar pourquoi ñun ñëpp ñu d'accord ne yaay suñu candidat tu en le profil tu la capacité tu as l'ambition, mais tu en as surtout la force de caractère qui fera que tu seras tax du ma balee lépp ni wóolu nañ la doyloo nañ la yaakaar nañ la te yéene nañ la yàlla na daak Dakar mottali ci ñu yéene ngir le soir du 23 janvier wir Yewwi Askan Wi wir Barthélémy Dias wir les 19 communes